ngeen ndax li ñu gis yéen a ngi koy ku si nekk di sa am jàngat mhm. xam nga mënumaa comprendre koo xam ne tey jii yow lu mu dee dee chaque mois di nga am deux cent mille wala trois cent mille c'est vrai dund Sénégal métti na ci loolu mais nga dajale ko ba mu mat benn un million deux millions nga ne da nga koy takk jóg dugg ci gaal yi loolu boo bëggee jël ne mbir mi nguur gi la da ngay ndax sa bopp parce que ba ngay taxawal yow sa kees ko di ko daaj nguur gi jàppalew la self made man la yaa taxawal sa yëf ba mu taxaw nga dajale ba mu nekk benn un million deux millions wala trois millions mais yow ni nga toogee ci taabul joojee ah ba dajale fa loolu boo fa toogee di nga dajale lu ëpp loolu jarul sax ngay dem mais nga ne déedéet dama ko yàkkamti dajale naa benn six million wala trois million nga dem jël gaal gi waa léegi ban lan mooy solution bi moom laa lay expliquer solution bi lan la fu mu nekk nii xale yi dafa mel dañ leen xabtal ah, loolu tam am na de dafa mel dañ leen xabtal gis nga géej gi nga nekk mool nga ñàkk nekk moo a ci yam da xam ne nawet dem géej wóorul. ñëpp xam nañ loolu. waaw mais lan mooy solution bi ñoom ñu ngi dem de. mais ñu ngi dem mais dañ leen mën a téye. nañu bàyyi ñu dee. non dañ dem géej. a. xam loolu ñoom laa lay expliqué. ñoom ñoo man lenn la mooy convoyeur ci boppam ñu jël leen a ah. parce que ñenn ñi business lañ ko def gis nga ñi defar ñi si yëngu ci ginnaaw si business boobu demuñu géej de ànd ñox ñi di dem dañuy investir génne seen benn cinq millions daal di defar gaal wala lu ko defar gaal nga gaal nga gisoon noonu gaal gi yóbbu ñooñu Espagne de gaal googu day jël da leen di jël ci tefes gi leen yóbbu ji fa ñu dem parce que gaal gi di dem gii di gii di mbëkki mi ngi ci biir géej ga mm. dangay ngay di roñ kon gaal bi dafa surchargé woon xam gaal dañ leen koj après après yenn information dañ leen di jël di la yóbbu ba gaal gi fees gaal yooyu nga xam ne moo leen di yóbbu tey boo taxawee si biir. ah na doo feeñ. Ah, ok gan di ma taxawee si biir du ma feeñ. man la yëpp loolu waaye kër man nga yëpp man man nga yëpp par exemple lu ma. 200 la méthode de convoyage a changé. dafa am bus bu si man ngay blopp deux cent ci biir bu fayee li nga xam ne moom mooy trois cent mille wala quatre cent mille ñaata la hmm. ñaata nga si investir woon du benn cinq millions six millions ah lan ngay jënd ñaata bidon bidon d'essence ngay def ba fees nga sol ko ci lu mu dee dee di nga si ay millions yu bari te yow demoo léegi yow capitaine ba ci boppam da nga naan doo fay du da bëgg dem mool nga xam nga géej doo fay am benn huit cent mille ngi am yow ànd ak yow yóbbu nagaal gi mbëkk rek na nga tefes rek. et justement Mame Mbaye pour conforter la ci li ngay wax mooy ñoom bi ñu demee sur place ki doon dawal pirogue bi moom rëcc bi ñu ko xam na bi gaal gi këpp mën na fay ñaata dee. nga xamante ne miinuñu géej miinuñu dox seen la preuve miinoo géej gis nga si bëri ñu dee ñu ngi seen saako euh, saako bi nga bi mais ah, yow bi nga tëmb biir géej bàyyi doo ko dindi parce que xamuñu. mais mais fi géej gi tere également foofu ci ñi ko xam. Mm-hmm. yoon dafa am yoon. c'est que Mambay li ma amee yoon géej noonu la amee yoon. mais Mambay vient de faire une grosse révélation maanaam le pilotes qui vont faire leur mbëkk bi ñoom ils sont au large. maintenant ce sont les petites pirogues. Ah. tu peux les confondre à des pirogues de pêche. Eh, eh, eh. qui vont amener ces gens-là jusqu'à des grandes pirogues. Fabrice tout un système de surveillance. parce que am na tam ñuy pointé ci tefes yi. Ah. di observer. toute une organisation su mel ne si moo fay miinu ñu ko foofu ñu xalaat ne. secret la ñu koy def. donc ñoom dañuy waxante y a des gens qui surveillent au cas il y a des la police euh, des frontières wala xaw ma lan mu tudd euh, y a des gens qui surveillent en mer au cas marine nationale fan la tool parce la marine ñu alerté fële ko donc am information bi day circuler seen biir lu mat benn deux ils communiquent ba en place jógee Fatick de surveillance léegi débat bi foofu la ñuy jël c'est-à-dire il faut pas aussi perdre cest débat bi foofu la information kee jóge Mbuur kee jóge Joal ñu daje si benn sa quartier ba la ñuy daje mën nañu jël néeg ba ñëpp mag ba heure tëmb bi Mambaye Mambaye maa ngi jégalu parce que yow information bi si toi tu connais cette information en principe les autorités doivent la connaître hmm. ils sont informés parce que yow boo ko boo demee ba xam loolu ça veut dire que l'État est au courant xam nañ ko je crois donc l'État peut arrêter ça donc l'État peut arrêter ça arrêter avec quoi quel moyen il nous fait des aéronefs pour surveiller les côtes et encore. moo ba ah. moteur la ñuy dawalee essence. marque nationale lañ mujjee gën. mais gis nga bu ñuy def ñaari moteur la ñuy yor. ñaari moteur il faut une surveillance mais Mbaye man ma question c'est que ñi nga xam ne ñoo organisé li mel quand ils voient des jeunes mourir ils se disent quoi ñi nga xamante ne ñoo nekk derrière toute cette organisation. asma yooyu. xale yi bu ñu déggee ñoom lan la ñuy wax. ñoom yaay yaay toog fii naan ñoom business investissement la ñuy def. retour la ñuy xaar sur investissement. même dañuy dugal seen xaalis waaye yow xale bi xam ne su ma demee dee nag boo demee dee du la pression sociale xale. lu mu dee dee daan 21 ans waa léegi yow boo jëlee sa xaalis dugal ko xam ne da dee yow yaa xaru. dañu waxante dëgg. ab drogue qu'est-ce que ça fait aux trafiquants de drogue. rien. xam nga ne li yor yoonu suuf gi ak yoonu géej gee yem. xaru doon Sénégal nee ñoom dañoo jàpp peut-être toog Sénégal risque la dundu gu gën la mais lu mu dee dee yaa ngi fi say mbokk ñu lay gis. en tout na ñoo xam ne jógee nañ seen. ñëw fii de delluwaat li lay wax ne am na ñoo wax ne bàyyi ko muy wax rek bu ñu gisee daal tam bi mënoo ci dara alors on part yéen kay groupe des médias tey koo yëg ci tribune bi ba tey ñoom ci Bougane Gueye Dany mooy joxoñ baaraam nee fii ci réew mi au moment wu ñuy wax kon deux cent kilogrammes or yu nga xam ne ni daanaka mille vingt deux bi ñu xaymaa ca Kédougou jëlee nañ ko fa donc or bi desul Sénégal dañu jël rek mu dem après ñu mu wiiri ñëwaat. coppeet yóbbu. ndaw ñi. dinañ màngaani ndax lan amuñu pexe. fii nga xam ne moo ñu waroon jariñ war a suqali suñu réew ba ndaw yi man fee des muy or bi zircon bi phosphate bi manganèse bi nga xam ne daanaka dañu ko caxat caxatee waa léegi ko ndaw yi luñ fi des li nga xam ne moo ñu woon moo waroon suqali Sénégal ba ndaw yi amul xëy wala au moins ñu am suñu jàpp nee na lii yëpp bu fekkee dañu ko caxat caxat ñun mënuñu koo teg bët ñu koy jëlee coppet di yóbbu. ndaw yi tamit ñoom i coppati seen bopp rek teg barça rek mbëkk baa suux ñoom lan lañ ko jàppee. lii gis fii nga xam ne moo di wakaam. am sa goro yéen dafa def xayma. 332 ci ay doomu yi nga xam ne ni ñoo faatu diggante Dakar Saint-Louis ak Kafountine Antoine Félix Diome nee na gaal gi nga xam ne moom moo chaviré avant-hier laaj na fu mu bawoo. fu caaro gi di la wax ne njëkk a faatu ci mbëkk bi lu ci ëpp caaro la. caaro ñu ci ëpp luñ faatu. caaro yi. mbëkk moom yi la ñuy desandi. daanaka yéenekaay yu bari da si la si la ñu dikk. yéenekaay yu bari si la ñu dikk. la proposition Boubacar Boubacar Sèye. Ah. de l'immigration irrégulière. ndëpp ndëpp la jël le témoin yéen a kaay daal di nee nañu baax saa wala baax saax mhm. xale yi xam ne ñu si bëri buñ tëmbee tuux moo gën a moo gën a wóor si ñoom nga dem fii nga xam ne moom mooy bassa ndax lan période nawet bi ñu nekk ndaar gee ñoo gën a xam ne pour nga traversé mbël ma ni ñu koy woowee mhm. fii fii fii fii géej gi da jeex bi wóor na yàlla dafa am noo koy traversé boo dul mool dëkk boo dul mool dëkk sa dëkk ba. Hmm? doo xam ni nga koy traversé rawatina nag mu nekk nawet. da ngay tuuru nag. am na nooy traversé da ngay suux <laughs> ci biir. da ngay tuuru de. Barça wala Barcelone dix huit morts la ñu wàññi hmm. démb fii ci Wakam. ñu leen di ay ay ay wàññi. léegi mbëkk mi nii en lay rey. reetul par détail. imagine tout de Thiaroye à Wakam dix huit morts. dix huit morts. di teg sippi di teg sippi di teg ci tefes yi ba mu mat dix huit. lan moo ko waral benn mouvement de panique. Ah. waaw. aywa ndax peut-être ragal nañ ñu jàppale ñoom ñoom ñu tëbandoo. ñu dexe fa ñàkk see bakkan. président Macky Sall daal di bind moom it daal di jaale. le soleil yéene kaay ne nañ ko wax te des dix-huit morts. vraisemblablement. waaw l'embarcation de fortune et ses passagers voulaient rallier l'Europe. ñëpp xam nañ ne ñi ki dañ doon mbëkki. dañ doon bëkk rek. information bi dafa. ñoom bu large. wakaam comme les parce que démb li am wakaam dafa dëkk comme film horreur. comme film horreur da ngay lay génne par benn ci ndox mi di gis. bu dul dara rek seddaayu ndox mi. seddaayu ndox mi rek rey laata laata yam lay lap. seddaayu rek. da ngay